comme quelque part dafa mel ni Idy ba tey baaluwu ko ce qui s'est passé euh, concernant les chantiers de Thiès en 2014. non xam nga Idy du moom kese de boo koy analyser da nga koy boole li mu wax Karim Wade nit kuy ñëw seet ci la sa bureau nga dàq ko mais ki ngay dàq mooy ki nga xamante ne bii loxoom setul ki ngay dàq mooy ki nga xamante ne bii waru leen bokk jotaay ki ngay dàq mooy ki nga xamante ne bii il n'est pas la bienvenue et cetera et cetera et cetera kon jusqu'à présent Karim moom fa mu war a toog voilà fa mu war a toog waa jàpp ñàmbaram non cest à boo xoolee boo xoolee disqualifié na Macky Sall il a entretenu un langage euh, clair obscur sur sur sur Ousmane Sonko parce que jusqu'à présent mu ngi ko naan ko voilà bu dekkee def loo defal comme ni ma defoon et cetera chaque jour il veut se montrer en exemple defal comme ni ma defoon Karim dama ko ndax ma Macky Sall bokk kan moo fi des moom. positionnement la. xajamal xajamal xajamal xajamal soo bi ba pare positionné non non non mais nag sénégalais yi nag ñooy wote de Idrissa Seck ni mu waxee démb safaanu nag trop en 2007 bi dem élection nga xamante ne il a dit c'est meilleur résultat 2007 la ko def suma juumulee ak 2000 ak ak 2019 je pense quelque chose comme ça. Mm. ah mais ndax jaroon na muy wax ci Abdoulaye Wade démb ñëpp jàppoon ni c'était pas na wax tenir discours am sans mais xam nga Abdoulaye Wade day am moment yoo xam ne moom mooy tirer les ficelles du PDS day am moment yoo xam ne Karim Wade mooy tirer les du PDS ba pare jusqu'à présent Abdoulaye Wade c'est un leader politique boo xamante ne bii mais je ne dis pas qu'il est craint mais c'est quelqu'un qui compte à part partie socialiste ak peut-être Pastef man xaw ma parti bu ëpp euh, coordination wala bu ëpp euh, pas pas pas coordination implantation laa ko mën a waxee mais PDS implantation mais mais mais mais mais mais gis nga li mu def bi ñu defee jonction wàllu yeewi donc il y a des localités yoo xamante ne jusqu'à présent non le vote il est inconditionnel pour Wade mm, loolu kenn du ci débat mm-hmm. ba pare li gën a garaaw xam nga Idi ba tey dafa nekk ci stratégie bi mu nekkoon mooy le trouvaille de la grande famille libérale moo ko jëkk théorisé autour de sa personne pinsis bi ma takk nii bu PDS la loolu wax la loolu wax la loolu bu ko waxee sax ça la à Macky Sall ça parle à Karim toogal foofu après ma gérer affaire bi y a des libéraux yoo xamante ne d'alors qui sont devenus en fait des pastefiens et cetera et cetera mooy li ma la wax c'est-à-dire dem Idrissa Seck il a parlé à tout la classe politique tout tenue boobu di léegi nag bi mu bi mu waxee ak ñoom daf leen renvoyer à leur passé renvoyer à leurs ennuis judiciaires renvoyer leen par exemple à leur euh, je ne sais pas euh, et léegi nag kon fi mu nekk nii moom moo fi des. voilà ci loolu mu tenir bu discours am ba pare euh, tagg ki nga xamante ni moom mooy la première dame Marème Faye Sall. Mm-hmm. ñëwaat ci relation yi nga xamante ne am na ko ak Macky Sall moo ma jiitee ma nag moom julli nañ daf ma jiitee ba pare ma jiite war ko géeyee ni mu ko waxee. après ñëwaat magnifier li nga xamante ni moom moo di bilan jugé ko ni bilan bu excellent le président Macky Sall def sur le plan euh, matériel euh, pour ensuite dire am na euh, tey jii ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a fallu mineur bi du ci bokk étranger bi du ci bokk ak ki nga xam ne def na ñaari mandat mm-hmm. non xoolal Idriss Seck day def communication à double sens ki téye bàyyeegul nit ñi bëgg mu bàyyi da koy neexal foofu ngay dugal li mu wax Macky te Macky Sall lu ko naqari boo ko waxee mare eh, boo ko taggalee Marème Faye Sall loolu neex na ko loolu da koy daal loolu ñëpp xam nañ tu comprends beneen bi li mu wax noonu effectivement loolu la droit constitutionnel wax après on va me dire non juge constitutionnel waxagul ci kii non loolu la constitution. nee na laaj na ko ku mel ni Serigne Diop constitutionnaliste mu ne ko Sall amul pour. waaye laaj loolu Macky Sall moo ko waxal boppam. ma xool boobu ak ay ministre am loolu jaruñu ci delluwaat bind ko ci ay livre loolu jarul laaj ay Serigne Diop peut-être il est il a plus d'autorité en en parler mais ko waxee wax ko pare après maanaam daa teg mais conseil constitutionnel moom moo war a valider ou pas. waaw naa cest à loolu c'est le principe du juge constitutionnel mais lii mu wax nii tamit c'est des faits parce que Macky Sall moo taxaw ne voilà et cetera fii kenn mënu def lu ëpp ñaari mandat yu teg la ay ministre am wax ko ba pare doon ko xeex Abdoulaye Wade maa ngi gis benn lettre bu mu bindoon madame Nafi Pillay bi nga xam ne moo nekkoon au commissaire des droits des des droits de je pense bien aux Nations Unies n'est-ce pas euh, le premier février 2012 di ko wax ne ko woy la Wade fii la nekk di jàpp jeunesse bi te jeunesse bi li ñuy xeex du dara lu dul moom sa candidature illégale de troisième mandat donc loolu boo ko appliqué mais naturellement Macky Sall warta bokk ci troisième euh, warta laay réew mi léegi nag Idrissa Seck moom sa stratégie de communication c'était juste Euh, faire une sorte de, de euh, une stratégie de, de, de positionnement ou bien de repositionnement da ngeen ma rayoon ci politique maa ngi nii toog di walis gis nga rayoon ngeen ma ci politique. Mm. mais ki ngeen rayoon di politique moom moo tax fii di en fait di di di walis comprendre nga. pour dire que il existe jusqu'à présent. mais tout récemment il a réussi quand même à faire parler de lui. depuis lors gis nga ni ci ci plateau yi mun naa ni sax fan yi euh, bësu Sonko dafa xaw wàññi ko tuuti ñëpp ci Idrissa la ñuy wax xam nga xam nga politique moom fexe ba loolu na ko quelque part mais position wu Yankoba Diattara dans cette histoire ak mm. na fii Idi mere ko te loolu weddiwu ko démb parce que dégg nañ ko mun a Yankoba quelque part day bëgg parfois day bëgg dugg ci caayam mm. xale nag moom boo duggee gis a caaya bàyyi gis sa li xamante ni moo lay jommal ak yu ñu mel non xam nga lan la xaw ma Idi daf maa déglu xaw mais man ba Yankoba këram présenté lettre de démission bu bañ moo Macky Sall ñu waxtaan ci dama ne carrément Idi bis bu buddee ko jatara bana an ak moom Macky Sall da koy récupérer Idi la gën a xam li mu def ah non bu génnee bàyyi booy bi booy bi day dem an ak Macky Sall ah Macky da koy récupérer. soxna booy bi dem na ba pare de. ah de toute façon moom. gisee ni mu proche encore officiel. mais je suis persuadé que ne si Ousmane si si si si si si Yankoba Diatta si Idi euh, par exemple euh, je ne pas mu am ay ennui wala et cetera sa candidature mu am beneen tournée mu mu jël xam nga mais am na nu muy demee Diattara saa waay Macky Sall da koy récupérer ba pare xam nga koo xamante ne Idi la formé Idi am warul am intérêt li mu jàngal Diattara Diattara dem fee di ko partager mhm. loolu kese la Idi moo la gën a xam ni am na nu muy demee parce que politique la ñu nekk ay sama doom laak maa ko jàngal ak maa ko may bourse ak maa ko formé pendant vingt amul yaa ngi dégg président Macky Sall wooy juróom bu jigéen yàlla na ko yàlla yërëm am na ay dénkaan yu mu defoon ci digganteem Abdoulaye Wade euh, ci digganteem Abdoulaye Wade ak Macky Sall Sall mus na taxaw ne ko Abdoulaye Wade du ma mos a trahir trahiru ko mais àndatuñu d'accord communication Idrissa bi démb soo ko doon non franchement dana jafee doo xam nga lu tax parce que c'est pas linéaire c'était pas une communication purement politique am na ci loo xam ne gastronomie la maa ndogoo doog diw am na ci loo xamante ne bii ça relève de la religiosité diw maa ko jiite donte man jiite géeyee gi sax lan moo tax mu mu jiite Macky Sall géeyee te gannaaw géeyee amul beneen julli bi ci topp est que du Macky Sall daa jeexal. <laughs> Ah, loolu tamit daf mel ay wax la de. waxal la di deful dara ci neen. Idrissa Seck ba pare man kër jàmbur gu mu xëy fajar di fa dem waaye loolu rek loolu xam naa wàññiw dara Ousmane Sonko su ko gën a pare ci boppam fuuf ah mu ngi ne de dafa rax mystique tuuti ah mais Idi lan lay def ay kër jàmbur ay fajar moom tamit yéeg ci moto non non non yooyu quoi wax dëgg ne yàlla man du ma nangu ma fajaru de man du ko nangu man di <laughs> wax ay wax <laughs> maa bañ loolu man non Idi Idi dafa garaaw de wax naa xam nga Idi gis nga Idi hmm. non Idi ndeysaan xaw ma de xaw ma quoi mais Idi Idi ni mu tàmbalee woon bu ko continué woon soxna sa it dafa xawoon mën nga koo bañ wax lu la neex ci moom mais Idrissa Seck am na xam-xam waaye caaxaan. que kon dans ce cas là kii di Macky Sall ak kii di Sonko. am nga bu njëkk bi muy tàmbalee dañ naan non day préparé nangam nangam mais ko xam par exemple xoolal Idi buy wax alxuraan. Mm. nee ma du yàq de mais maxaarij bi c'est-à-dire dicton bi da xam ni kii lu fend la ci moom bu dee jàng def na ko. maa ngi dégg Cheikh Yérim Seck di ko attaqué naan Idi du wax français mais Yérim moom ban français lay wax Idi day day làkk français non non non Idi day làkk français yéen tamit ah. tu comprends Idi moom loo ko contre contre contre contre contre maanaam aura bi mu am démb gëj na am ca jamono jamonoy chantier de Thiès yi maanaam tax yi ñëpp taxaw di ko déglu xëy nit ñi nekk à la une et cetera et mais doful nag xoolal dafa def benn genre câblage sociopolitique ak benn observation sociopolitique xam na ni fi Sénégal toll fi Sénégal toll nit mënu fee wax lu safaanoog doxalinu Ousmane Sonko donte am na ay limites am na ay contradictions et cetera et cetera yaa ngi dégg mhm. mu provoquer la familiarité ak heure bi mu ko def dès l'aube à l'heure la campagne. yaa ngi dégg xam nga. man bi ma ko waxee rek après dama gis benn journal wax ko ci semaine boobu aussi beneen journal bind ko et cetera et cetera fondamentalement tak ba pare moom nitu symbole la veille 4 avril la ko bëggoon def quelque chose comme ça. Mm, mu reporté ko mm-hmm. mu def ko un vendredi te idi euh, bëri na ci ay communication lu muy def vendredi donc nit ñi liñ doon xaar am na lum ci junj seeti naa ko maa ko ji euh, ñoo jëlandoo fajar et cetera nangam nangam. donc loolu yëpp ça rentre dans le cadre boo xamante ne bi idi présentement li mu bëgg a wan nit ñi mooy ba tey la fi nekkoon ci wàllu ora ci wàllu charisme ci wàllu discours xam nga ci wàllu euh, bokk xam nga ba tey loolu mooy ngi fi donc boo xoolee ñi mu sànni xeer ñoo ñoo fóote Déthié Fall dafa fóote non non mooy li ma cest à boo xoolee bu dee mën naa ko non moom boo xoolee ay borom xam-xam la ñu doon ay nit ñu xale non moom boo xoolee bu doon am na ku muy defal loolu dafay dëgg sax nit ñi di wax ni parti réew mi moom benn kaddu la muy loolu boo xoolee mooy bu doon am na koo xamante ne bii tey bu dul woon liñ koy toppee bu dee par bu doon euh, toppewuñ ko dara kooku peut-être moom la war a mën a jàkkaarloo mooy Ousmane ko parce que Khalifa Sall boo xoolee waxul sax ci ay waxam presque leeragul Karim Wade daanaka moom daf ko ne yow fii sa morom nekk fi jóge fi <laughs> yaa ngi dégg si on contextualise euh, léegi nag bu dee Sonko am na jafe-jafe ci wàllu yoon donc moom pratiquement moom rek moo fi nekk. justement euh, moom mënuñu ko organiser présidentielle boo xamante ne moom kese mooy nekk candidat aussi. loolu sax moo moo moo war a sama laaj dans ce cas là Mansour ndax tey euh, kii di Sonko ak Macky Sall devrait tout simplement jouer désormais la carte de la prudence ak ak ak non non est-ce que Idrissa Seck wane na euh, sur le plan politique deewul comme ni ko nit ñi yaakaar non non xam nga keroog Idrissa Seck moom ba tey acteur politique majeur moom la ko américains yi jàppee